innaka anta al-aliimu al-hakiim allahumma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur ginnaaw bu ñu buur yàlla subhaanahu wa taala ñoo ngi julli ci sang bu tëdd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokku ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ngeen di si ànd seen mbokku Ibrahima Dramé ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu mbokk jaawo jallo mbokk yi yéen a ngi fàttaliku woon keroog buñ doon taxaw ak yéen suñu waxtaan yu mujj yi ñu ngi yemoon nag yenn ci bunt bu am solo bi nga xamante ni mooy la aju ci cër bi ñu naan làmmiñ la muy wax waaye cër bi nga xamante ne mooy làmmiñ la muy wax ci lu baax ak safaanu lu baax inchaa allahu bi iznillahi subhaanahu wa taala tey ñu war a jokk ci bunt boobu beneen bunt bu bees xam ngeen ni ñu ngi waaj a dégmal ci xew-xew ju mag ji nga xamante ne xew-xew diine la mooy iidul adxal mubaarak di feet tabaski walla di julli tabaski buñ ne julli tabaski nag dafa am li ko sabab daa am li ko waral tey bunt boobu lañ fas yéene waxtaan ak mbokk yi fii ci Rewmi FM 97.5 bi iznillahi subhaanahu wa taala ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala yàlla ñu buur yàlla may dégg ak topp yàlla ñu ko tàmbali ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu fekkee ko ci bismillahi rahmaani rahim waaye ñu jeexalee ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi ni di ko seen muy ñëw ñu di ko fekki yàlla buy ñëw nañ ñu fi fekk waaye buy dem tamit yàlla nañu fi bàyyi waaye lépp lu jaamu yàlla ci biir weer wi yal ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jaami yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xam ngeen ne xéewal bu mag teraanga ju mag kado joo xamante ne amul kenn ku ñu ko jox ku dul buur wi tabaraka wa taala mu jox ñu kado bi ni mel kon bu ñu jëfandikoo teraanga jooju di nelaw suñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam daa am lam ñu tegtal ne gannaaw bu ñu joxee kado boobu comme nañ ko bëggee yàlla buur bi tabaaraka wa mu yombalal ñu bañ ko defee comme nañ ko bëggee kon lañu war mooy bu ñu jeexalee jëfandikukaay boobu di kado bu ñu yàlla jox te mu doon xéewal ju mag yooju te mooy nelaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa am lum ñu won loolu la ñu def loolu lañu ñu war a def te loolu lañu ñu war a wax ba tax na mu ne ñu kenn ci yéen bu ko yàlla deeloowee ruuxam ba mu yeewu ci nelaw la njëkk lu mu war a def mooy sant yàlla moo ne sant yàlla boobu noonu doomu aadama bi di def rawatina jullit bi baat bi ngay yëkkati bu duwutoon yonent bi mooñu ko baaxee sallallahu alayhi wa amul kenn ku ñu ko doon wax ba tax na mu ne ñu kenn ci yéen julit ñi bu nelawee ba yeew yàlla defalal ko xiwal ba mu yeewu ci nelaw na wax ñaan ba ñu bëgg yëkkati nii te mooy alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur la ñaan bi di tekki mooy mbooleen xeetu cant yu kawe ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne moo ma delloo sama ruux gannaaw bu mu dogalee ci man nelaw bi nga xamante ne mooy dee bu ndaw te ëllëg bés pénc bu ñu nelawee nelaw dëggintaan bu ñu faatu dikkalee bu ñu dee dikkalee ci moom dong lañuy ñuy dellu te si moom dong lañuy ñuy yeewu ëllëg ci nelaw boobu ba tax na kon yow doomu aadama bi xamal ne sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii la la wax ba tax na nga war a bàyyi xel boo yeewoo ci nelaw lu njëkk li la war mooy nga sant yalla buur bi nga xamante ne moo jëflante ki yow anam bi ni mel nii ndax moo ne am na ñanga nga biig ci guddi amaana ñooñu ndogalu yàlla dab na leen ci nelaw woowu ñu doon nelaw ñu jaaree foofu nelaw be keroog bés penc kon yow mi nelewandoor ki dem yow bula la yàlla tabaraka wa taala delloowee sa ruux lala sa yonent bi dig sallallahu alayhi wa sallam mooy na sant yàlla ndegem delloo nala la ruux mu bàyyi la fi keneen ku mu yóbbu coobarem la demee waxtu ba mu dëxalante ko moom moo jot moo tax mu jële ko ci dundu bi kon yow mim fi bàyyi nga continuer di dund lara war mooy nga ne alhamdulillahi alladi cant ñeel na buur bi nga xamante ne axiyaana moo ma dundal delloo waat ma sama ruux may dund baadama amatana gannaaw bi ma nelawloowee nelaw bu ndaw bi nga xamante ne mooy dee bu ndaw gannaaw bi ma faatee ci dee bu ndaw te mooy nelaw te wa ilayhi nushur ci moom yàlla la ñuy dellu delluwaay bu mag bi fa moom yàlla dong ba tax na jullit ba ubbee bisam ci ñaan bu tedd bi yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam ña yaroo ci keppaaru yonent bi di saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain ñooñu tamit ñañu yar kenn ci ñoom di xasanul basri rahimahullah moo ñu baaxee ci kàddu gu sell ci ndénkaane ju matale laaye ju neex waxtaane te neex a dégg tamit te mu fees dell ak xam-xam ba nit ñi war a mën a jëfandikoo boroom xam-xam jooju di xasanul basri rahimahullah mooy fàttali doomu aadama bi mu ko ibnu aadam yow doomu aadama bi innama anta ayaamun xamal ne bési àddina yay jaar di la foto nga di ci dundu après bés yooyu ñuy jaar di jàll di wéy di dem bés yooyu la fi tax nekk ba tax na danga war a bàyyi sa xel ku lama zahaba yow bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne zahaba baaduka am na lu denc ci sa dund bi kon bés yooyu nga nekk di dund bés yooyu ñuy enregistré sa jëf sa wax sa melokaan sa nekkin ngalla waay fexeel bés boobu bu lay photo di la enregistré di la filmer nang fa def lépp li nga xamante ne day doon ma yuhibbuhu llahu wa yarda dina doon lépp lu yàlla sopp mu doon la mu gërëm bul def lay merloo yàlla bul def bàkkaar bi nga xamante ne doo ko tuub na nga bëri li ngay tuub te nga xam jëf ya ngay jëf ci bés woowee ndax bés boobu boo xasee ba rugurubee sa mbir yobbu jeex na xalaas bés boobu dootul delsi te mbir boobu da koy yóbbaale bu dee tuuboo wala defaloo jëf ji nga xamante ne dañuy effacer sa bàkkaar yooyu ah xamal ne bés boobu am na lu mu taxañ ci sa dund yóbbaale na ko ba tax na xasanul basri mooy laaye biir askan bi nañu yow doomu aadama bi xamal ne bépp bés ba ñëw jaar jàll bés boobu am na lu mu wàññi ci sa dund bi ba tax na ñu bàyyi xel bési àddina ya ñuy dund ñu bari lu ñuy jëf ci yiw ci bés ya bés yay ñëw di jaar di jàll ba tax na ñoo ngeen ni jublu ci événement bu mag ba nga xamante ne feetu jullit ñi lañu di julli tëbaski ñu ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa buy ñëw yal nañu fi fekk waaye buy dem yal nañu fi bàyyi te lépp lañ fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ñu fas yéene leen dëgtal lenn ci sabab ba tax yàlla baaxee xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa la nga xamante ne mooy julli tabaski waxtuy tabaski di fukki fan ci weeru zilxijja mu nekk fukki fan ci weeru calendrier jullit ñi mu nekk fukkeelu weer ak ñaar su ko defee ñu xam ne ñu ngi nekk fum ni nii fukkeeli weer ak benn muy Zulkaada Zulkaada la ñu nekk tey Zulkaada la ñu nekk nii weer bu ñu nekk nii bu jeexee weeru Tabaski mooy teru te mooy weeru Tabaski fukkeeli fan bi mooy bés bi nga xamante ne ci la xew-xew bu mag xew diggante benn famille ba jébbal seen lépp ca yàlla suñu boroom tabaraka wa di waajur bu góor ba ñuy tubee nabiyullahi ibrahim te mu doon yonenti yàlla ak waajur bu jigéen bi nga xamante ne kenn la ci famille bi waaye ak doom ja déggal wayjuram bu góor ak wayjuram bu jigéen te mu doon nabiyullahi ismail alayhimu salaam bi dafa am lu ñu dëxalanteeg seeni boroom subhaanahu wa topp yàlla bañu ñu ci seeni xol wayjur bu góor bi façon ko roggalaat ko ba ci njaboot ba mu nekkal ci kër gi waaye fas boobu waajur bu góor bi fas ci xolam wiital yàlla ba mu fas ci xolam cofeelu yàlla ba fees ci xolu waajur bu góor moo roggalaat ñëw ci njaboot ba ñëw ba ci doom ba su ko defee mu bëgg a won yàlla ne amul dara lay dox sama digganteeg cofeel ba ma la sopp xataa am na loo xamante ne daggitu resu xol la te muy doom di takkandeer mënul dugg sama digganteeg cofeel ba ma am ci yow yàlla yàlla suñu boroom tabaaraka wa taala ma xam la doom di remplacer la doom di saf ci xolu wuyjur yàlla borom bi tabaraka wa taala bëgg a xool xolu jaamam jooju di nabiyullahi ibrahim alayhi salaam cofeel ba mu doon manifeste ci biir xolam ne moom la am ci man dama koy nattu xool ba xam cofeel boobu mook doomam bii mu am gannaaw bu mu nekkee màgget bi ni mel ana wan cofeel moo gën a ëpp palaas ci biir xolam sama cofeelu yàlla man moo ëpp ci xolu Ibrahim wala cofeelu doomam moo ëpp place ci xolu Ibrahim espace boobu noonu nag képp ku bëgg xam cofeelu yàlla bu dee moo occupé ci xolu yonent yàlla Ibrahim topp ñu ci waxtaanu fajar wii di jaar fii ci réew Rewmi FM 97.5 wala bu dee cofeelu doomam di Ismaïl alayhi salaam moo ëpp espace ci xolu yonent yàlla Ibrahim képp ku bëgg xam cofeelu yàlla ci xolu Ibrahim wala cofeelu Ismaïl ci xolu Ibrahim. ana wan cofeel moo gën a ëpp ci xolu yonent Yàlla Ibrahim na nga ñun ci waxtaanu suba bii di jaar fii ci Rewmi FM 97.5 mbokk yi moo tax bu ñu demee xool ci téere bu mag ba ñu wàccee ci suñu yonent wi di alquraanul karim borom bi tabaaraka wa taala muy yënkeewal yonent yàlla muhammad ak xeetaam sallallahu alayhi wa cofeel ba yonent yàlla ibrahim alayhi salaam am ci biir xolaam cofeel ba yonent yàlla ibrahim lamboo ci biir xolaam ca yàlla moo tax borom bi tabaraka wa taala ne yonent bi ne sallallahu alayhi wa ca suratul saafaat aya 82 mu ne ko wa inna min chiatihi la ibrahim bokk na ci màndarga ci sama yonent bañu naan ibrahim ginnaaw bu mu amee juunoo ak waa dëkkam di xeetam ginnaaw bu mu amee ñoom féewaloo ci xeet ba ko yàlla nattu mu gan ci biir xeet woowu ñu doon xeet yuy jaamu xërëm ibrahim alayhi salaam doon abul muwaxidoon aw abul muwaxidin mu doon baayu ñay wéetal yàlla ci tawxiid mu nekk ku wéetal yàlla ku njëkk a wéetal yàlla ci xeetam alayhi salaam moo tax yàlla ne ko wa inna min chiatihi la ibrahim am na kuréel ba nga xamante ni Ibrahim ca la nekkoon gannaaw bu mu juunoo ak ñoom ci doxalin ci gisin ak ci doxalin yàlla ne suñu yonent bi ne is jaa rabbahu bi qalbin salim fàttalikul keroog ba mu dikkee fa yàlla mu wiital yàlla ak xol bu laab raxul dara ci biir xolam lay niroo ni xeetu bokkaale raxas na xolam ba mu set wecc ba mu laab ci xeetu bokkaale wiital na yàlla ci xolam ci jëmmam ak ci doxalinam keroog fàttalekul id qaala ba mu waxee li abihi ne baayam ne wa qawmihi ak xeetaam mu ne leen maaza taabuduun ana li ngeen di jaamu nii lii lan la li ngeen di jaamu nii laa xamut lan la ngeen di jaamu nii xërëm yi lu mu leen di jëriñ mu daldi leen wax ne moo ne yéen de a ifkan alihatan duna allahi turidun moo ne da di duural yàlla ci xeetu jaamu yàlla yi ngeen di jaamu seen xirimi ngeen bàyyi fi yàlla mi nga xamante ne moo leen bind te moo leen fi tax a nekk moo leen moom ngeen di créer leneen di ko jaamu loolu nekk neen ba ngeen di jaamu ngeen bàyyi fi yàlla mi nga xamante ne moo yeyoo ngeen jaamu ko ba xam yéen nii ngeen bëgg a dëkkee ah, dëkkin bi ñaaw na de nekkin bi tamit ñaaw na Ibrahim ne leen li ngeen mel ni baaxul waaw ngeen fenloo jaamu yàlla ba ngeen war a def ngeen créer seen xërmi di ko jaamu loolu ngeen bëgg nekkee nekkin bi ñaaw na de mu daal di lañ posé question bi nga xamante ni question bi ba léegi lañ ko war a posé ñun nit mu naa mu daal di leen wax ne fa ma zannukum bi rabbil alamin moo yéen sax ana lan ngeen jortu ci borom bindaafoon yi lan ngeen jortu fa yàlla ana lan ngeen jortu fa yàlla lan njortu bi ngeen am fa yàlla ba ngeen teg jaamu yàlla bi ngeen war a jaamu ngeen nekk di jaamu xërëm yi ana lan ngeen njort lan ngeen foog ci yàlla sax ba léegi gaañe mënuñoo tontu question bi waaye nag képp kuy wéetal yàlla tontu bi war naa mën a nekk ci yow lu yomb moo ne njortu wuñu fa yàlla dara dara dara lu dul mooy borom bindaa foo ni ñëpp rabbul alamin waaw loolu rek moo war a nekk tontu bi waaye nag ñii boo gisee xeetu yonentu yàlla Ibrahim amuñu gis-gis pour tontu tontu wi ndax ñoom jaamu xirim ak bokkaale yàlla moo nekkoon seen biir xol ba tax na lëndemaayu bokkaale yàlla moo tax gisuñu leeru tontu bi ni waaye képp kuy wéetal yàlla boo laajee sa bopp fa ma zannukum bi rabbil alamin ana lan moo war a nekk sama njortu ci borom bi ndaafooni sa njortu ci yàlla warul doon dara lu ne moom mooy yàlla mi bind mboole mbindaafooni waaw loolu dong moo wara nekk njortu julit fa boromam su ko defee yonent yàlla ibrahim alayhi salaam noppi ba ci kanam ndax xeetam dañ di xeet yay bokkaale yàlla xeetam dañ di xeet yay jaamu xirim bu mu leen laajee fama zannukum bi rabbil alamin ana lan ngeen jortu ci borom bi ndaafoon yi ana lan ngeen jortu fa yàlla nga xamante ne moo leen bind bind lépp luy dukkat ci kaw suuf si tontuñu ko mënuñu koo tontu xamuñu luñ koy tontu Ibrahim xool xeetam xool ñewen ba mu am ci ñoom mu daldi xool ci kaw asamaan xool kawtee fu yàlla ci kaw asamaan jël bëtam sànni ko ci jaww ji moo tax aaya bi nga déggee ci ne fa nazara nazaratan fi jóom mu daldi xool ci kaw asamaan xool kawtee fu yàlla ci kaw asamaan xool asamaan nu mu tàllee na mu tiimoo suuf biddiw yi ni ñu installé wu ci kaw asamaan si xam ni kii borom bi ndaa foon dëgg dëgg dëgg moo mën na liggéey liggéey bi nu mel mu daldi xool ne leen daal man dama am benn santiment ba may sentir sama yaram ba tax na mënuma ànd ak yéen dem ci fête ba ngeen nara a organiser demee ci suratul anbiya di nga gis la nga xamante ne noonu la yonentu yàlla ibrahim nara jëflanteg xirim ya xeetam doon jaamu waaye fii gannaaw bu mu sànnee bëtam aj bëtam xool ci jaww ji xool asamaan si ak biddew yi ni ñu placé ci kaw asamaan si mu daldi di gis kawteefu yàlla ci kaw asamaan si allahu akbar moo tax aaya bi ne fa nadara mu daldi di xool nadaratan ab xoolin weneen yoon fi nujuum ci kaw jaww ji daldi xool na biddiw yi placé wu ci kaw asamaan si fa qaal mu ne inni saqim man taay daal dafa am li ma sentir sama yaram waaw sama yaram daw na ci yéen yërëm naa leen jaamu yàlla nu mu amee importance bokkaale yàlla pertangeeg texe di yafa nekk ëllëg yàlla di la mbugal oh man yërëm naa leen oh yërëm naa leen ndeysaan Ibrahim mu daal di am xol bu naqari ak yaram bu diis gannaaw bu mu leen laajee fa ma zannukum bi rabbil alamin ana lan nga njortu ci borom bindaafoon bi nga xamante ne mooy yàlla mi bind mboolem luy dukkat ci kaw suuf si mu daldi jaaxle am xol bu naqari ngir xeetam nañu nekke di jaamu aaya bi ne yàlla ne yonent bi ci aaya bi ba léegi fatawalla anhu mudibiriin mu daldi dumooyu xeetam mu sëgg boppam wiccax boppam gauche droite mu daldi di ndànk jóge ko ci seeni ndaje boobu mu daldi dem waaye ànd ak loolu mu ngi xelaat ci biir xolam ne xërëm yi sama xeet bi di jaamu dinaa fexe jox leen fa message buy wone ne xërëm yi ngeen di jaamu mënuñu leen lor ci dara mënuñu leen njëriñ ci dara xërëm yi yéena leen yett teg leen fi ñu ne yumu duñu dàq weñ duñu dàq sindax duñu dàq yoo mënuñu leen lor ci lenn mënuñu leen fanqal njëriñ ci dara waaw duñ leen mën a njëriñ ci dara mënu leen leen fanqal loraange ci dara waaw Ibrahim daal di lii mu sëgg boppam wëlbati ko du xeetam mu daldi di kitti ci jotaay boobu moo tax nga gis mu ne fa tawalla fa tawallaw anhu mudbirin mu daal di leen jox ginnaaw daal di kitte ci jotaay boobu waaye nag lam doon xelaat mooy ne ñii daal duma leen bàyyi il faut ma fexeel seen xërëm mi jàllale wenn message boo xamante ne message boobu moo leen di yee ndax sama xeet dañuy nelaw waaw dañuy nelaw yàlla mi bind yore xéewal ba dul jeex yàlla woowu lañu war a jaamu mu dottali leen xéewal seen kaw ba ñu saay ba ñu ne saay ñu bàyyi fa yàlla boobu di jaamu xërëm moo tax aaya bi ne faraaga ila alihatihim fa qaal ala taakuluun bu ñu kitee jógee ko ci bërëb boobu ñu dem ci seen feet yañ doon feet ibrahim daal di wëlbatiku ñëw fekk seen yàlla yooyu seen xërëm yooyu du seen yàlla yi sax seen xërëm yooyu ñuy jaam Ibrahim ñëw ak waaxu bu tànk jër ak semmiñam waaw bu mu ñëwee nag daldi di leen laaj waaw ala taakuloon waaye moo ne sama gaay ñam bi ñu fi bàyyee dem fa ñu war dem ñu bàyyi fi ñam bi ñam bi tege ba léegi moo ne du ngeen ko lekk maa lakum laa tantiquun ibrahim ne leen mais lu tee yéen ngeen tontu ma ci li ma leen di laaj ibrahim laaj na leen ne leen qaal fa qaal ibrahim ne leen ala taakuluun moo du ngeen lekk ñami masalan buñ ko doon misaal ibrahim dafa jël benn boolu ceeb wala benn boolu laax yëkkati ko tiimale ko ci xërëm yi xeetam xërëm yuñ doon jaamu bum leen tiimalee boolu ñam boobu mu ne leen ala taakuluun moo ne du ngeen lekk ñam bi sama gaay ñam biñ fi bàyyi dem seen feet bi moo ne yéen ba xam du ngeen ko lekk xërëm ne ñum faalewuñu ko ndax duñu wax allahu akbar ibrahim laaj waat mu ne leen maalakum mais yéen lu leen dal laa tantiquun lu tax du ngeen wax ah, Ibrahim affaire baa ngi bugg leer léegi gis na ne du ñu jëmm yuy lekk dara ndax ay xërëm yuñ yettal seen bopp la ak seeni loxo ñu teg ko ñu ne yum xërëm yooyu lañuy ñuy barkeelaw xërëm yooyu lañuy ñuy jaam Ibrahim ne leen ba xam nii lekk yu riis yañ leen tegal ba xam du ngeen leen mun a lekk xërëm yi faale ko mu jàllar beku moo ne yéen lu tax du ngeen wax xërëm yi ba léegi ñu ngi ni yum faale wuñu ibrahim alayhi salaam ah ibrahim daal di ne ah sama gaañi de ñii ñu ngi ci réeraange ju mag ñii ñu ngi ci pertaange ju mag ñii de wallahi bu ñu deeyee ci réeraange ba ñu nekk nii cànkute ba ñu nekk nii buñ ci faatoo ah fu ñuy dajek yàlla foofu du neex ibrahim alayhi salaam fu mu mujje ak xeetam fu mu mujj ak xërëmi inchaa allahu subhaanahu wa taala ñu fi yàlla bàyyee bi ñu delsiwaat beneen yoon dinañ leen dégtal bunt bi ci topp ak aaya bu topp ci aaya ba ñu taxaw nii ñu ñaan yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala te boski baa ngi nii di jublu si yàlla ñu fi fekk buy dem yàlla ñu fi bàyyi te lépp lu ñu fa jaamu yàlla yal nañu ko buur yàlla nangul amiin yaa rabbal aalamiin yàlla ñu yàlla yombalal lépp lu waay mébét ci tabaski bi yàlla bu yàlla jafel dara yan na ko yàlla yombal waaye yan nañu yàlla may imaan bu mel ni fami ba tax yàlla xéewalal xeetu yoonam ci yàlla muhammad tabaski yal nañu yàlla defal ngëm yàlla binimel amin ya rabbal alamin ja'alana allah wa iyaakum min alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyaakum bima fihi min alayaati wa dikri alhakim aqulu ma tasma'un wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu